C'est quoi le problème maaleykum salaam. 224 force. 224 force. instant yi ñu ngi sànnante xeer takk der yi takk der yi ñoom it kat léeg-léeg ñu jaaxle sax jël ci xeer yi sànniwaale ñu ngay dóor ñu ngi dóor ñu ngi dóor mu mel na fi ne seen xol nag mi ngi bëgg a kee ñu koy dóor aura pas de troisième mandat en Guinée, Inch'Allah. Voilà. Quand vous voyez, on fait ça. On doit nous recenser. On doit, on doit, on doit, on doit, on doit, Nous devons choisir notre président. Alpha Condé n'a pas de droit de risser sur nous. Ils sont fermés les frontières. Ils sont, on est mal. On faut CDAO. On 150 morts. On est mal. CDAO n'a rien dit. 250 morts. 150 morts déjà. On a mal

ah Agra xoolal xoolal ñu fi nekk jeunesse Guinée dafa métti quoi dañoo sonn non troisième mandat en Afrique jeex na tàkk dañuy sonn dañuy sonn si suñu président bi waaw mbokk yi yéen a ngi gis noonu ci dafa mel nii dafa blessé sang mais mbokkam yi ñu ngi xool ñu koy yóbbu hôpital pour jéem ko faj waaw mi ngi noonu di dem ñu koy jéem a yóbbu hôpital mais teewul yi ba léegi ñu ngi sànni xeer yéen gis noonu ñu ngi noonu di ko yóbbu ñu ngi di ko yóbbu hôpital mais terewul ba tey gars yi ñu ngi continuer di sànni xeer. n'ont pas fait leur travail. Ils ne peuvent pas rester dans ta balcon et puis dire que la légalité va bien passer. Ça c'est quoi ça Ils ont tué plus de 300 jeunes à Mohamed Abdallah. Mais Rocky, mais Rocky de 83 ans. Abdallah, c'est pas pour Guinée. Mais on s'en fera bien, on l'a. En tant que, en tant que gagnant, li rafetul. Wunda yalla li rafetul. Alpha Condé, mom xam na ni mom gagné wu réew bi. Cellou Dalein moo ko gagné taxaw dëgër ni moom du jugu loolu du dëgg day jugu waxul dëgg day tey waxul dëgg suba day jugu. manifesté wone suñu naqar parce que nu ñu yore suñu réew neexuñu liñ metti mooy suñu président dafa gagné mooy seetlu Dalein Diallo ba pare ñu falsifier résultat yi jox ko ne moom moo perte. te loolu dañoo pare joxe suñu bàkkan parce que suñu victoire dañ koy feetu seetlu président la dañuy xeex ba mu jiitu rek ba mu jiite réew mi incha allah ci kàttan yàlla suñu suñu yëngu-yëngu fii nag li ko waral mooy dañoo bëgg a àgg suñu ambassade ñu manifesté wu foofu ñun nag liñ metti mooy liñ ñu empêché ñu àgg suñu ambassade mais lii yëpp mooy liñ metti lii yëpp CEDEAO ñoo ko créé ñu ngi foofu lu tax attew ñu dégg ñu dégg ñu dañu ko fekkee muy def dañ ciy ànd xam naa ne dañ cee bëgg a fee président CEDEAO dañ cee dañ cee bëgg a ànd da cee bëgg a def dafa def euh, comme moom troisième mandat la bëgg moo mu créé li yëpp mais dama kontaan ci Pape Alé Niang dégg naa lu mu wax dafa mën wax dégg ah. man kooku dama cee kontaan ci moom ah. euh, avant tout, je voudrais éclaircir quelque chose. On n'est pas là pour jeter des pierres. On est des manifestants qui sont pacifiques. ils nous ont interdit d'accès à notre ambassade. C'est pour cela qu'ils sont en train de nous jeter de la gaz lacrymogène. C'est pour cela qu'on est en train de jeter les pierres. Ok bah, Deuxièmement, je voudrais, je voudrais un appel solennel. La CDAO, la communauté internationale. Nous, on savoir si on ne fait pas partie de l'Afrique. Nous, Guinéens, On voudrait savoir si on ne fait pas partie de l'Afrique. Parce qu'on a gagné ces élections, il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas CDO qui parle, il n'y a pas la communauté internationale il n'y a personne qui parle. Ils sont en train de saccager les Guinéens en Guinée, ils sont en train de tuer les manifestants. mbokk yi ni ngeen ko gisee mi ngi noonu waaw mbokk yi ni ngeen ko gisee mi ngi noonu policier yi indi nañ li nga xamante ni moo di renfort doon nañ renfort. Guinée yi delluwuñu ginnaaw benn benn benn yoon. dafa mel ni dañuy gën a yokku boo xoolee. leeral comme comme ni ngeen ko gisee noonu booy aussi ba léegi ñu ngi leen jéem a delloo ginnaaw mais ñi nga xamante ne mooy booy ñu ngi continuer dañuy tas ci biir koñ nañuy dugg di wër-wërloo policier yi policier yi jaaree ni ñu jaar beneen côté bi wala ñu fël sa xamante ni moo di guinéen yi ak euh, policier yi xoolal ñu ngi noonu di toj ñu ngi toj foofu ñu yàq ñu ngi commencé saccager pharmacie boo xoolee ñu ngi ñu ngi yàq pharmacie bi parce que yii yëpp. gis na oto baa ngi noonu di foncer seen kaw oto baa ngi noonu di foncer pour ñu disperser parce que yii yëpp mooy loolu dañuy daw ñu ngi daaxanteeg ñoom ñu ngi daaxanteeg ñoom policier yaa ngi noonu di sànni lacrymogène policier yaa ngi noonu di sànni lacrymogène sànni ñoom dañuy jëlaat lacrymogène yi di ko ñi nga xamante ni moo di policier yi parce que ragaluñ ko booy dañuy dugg ci koñ yi booy dañuy dugg ci koñ nag policiers yi dañuy policiers ñu ngi jéem a calmer mais ba tey. dañ doon ak ñoom mais teewul booy ba léegi dañuy mel ni dañuy gën a yokk boo xoolee ci gis-gis boo xoolee gën a yokk vive la vérité boo gis nga nee nañ dañuy réclamer li nga xamante ni mooy seeni victoire boo xoolee ñu ngi jéem a yëngal ba tey ñoom ñu ngi ñu ngi continuer di di yëngal gis voilà voilà yéen a koy gis noonu moom jàpp nañ ko moom jàpp nañ ko moom jàpp nañ ko policier yi jàpp nañ ko ñu ngi koy yóbbu yéen a ngi koy gis noonu parce que moom mi ngi a ngi koy gis noonu moom mi ngi dem mi ngi dem ñu ngi koy yóbbu voilà comme ni nga ko gisee noonu yéen a koy gis oto baa ngi foncé seen kaw oto bi mi ngi foncé mi ngi foncé seen kaw mi ngi mi ngi di foncé seen kaw oto baa ngi noonu lacrymogène yi voilà voilà comme ni ko gisee waa ji moom mi ngi taxaw mi ngi amal li nga xam ne moom ñaxtoom moom mais ñi nga xamante ne policiers yi faale wuñ ko benn yoon taxaw na kaas li nga xamante ne moo di ay àqam ak yelleef voilà. waaw. Euh, gis nañ seen ngeen nekk fi depuis sànq ba léegi di manifester ñi nga xam ne moo di Guinée. Mm. lan moo waral loolu tey. lan moo waral loolu parce que fi ñu nekk Guinée depuis dix ans ñoo ngi ci souffrance boo xamante ne. communauté internationale bi ñu ñu abandonné ñëpp ñu abandonné CEDEAO ñëpp depuis dix ans on souffre en Guinée léegi ñu def élection mu ne day présenté au troisième mandat kooku di Alpha Condé mu présenter au troisième mandat kii di Cellou Dalein ku fait partie de l'UFDG mu gagné élection yi moom mu génn déclaré moom ak seniwam parce que ñooñu seniwam lañu ñu ne moom moo gagné et ça on n'acceptera pas ça en plus de ça ñi ñuy rey foofu depuis ce matin dem leen xool décompte yi depuis sa matin on tue des jeunes enfants des jeunes enfants depuis sa matin waxuma la ay mag da ay xale yu ndaw ñëpp noppi di ñu saytaan ñun dañoo sonn moo tax tey ñu ñëw daje fii ci ambassade bi ne tant que génnul ñu wax ak moom du ñu ñibbi moo tax tey ñu campé fii ba tey. gis nañ ni bi ngeen demee bëgg attaqué fi nga xam ne moo di ambassade bi policiers yi dañ leen ko tere ba loolu moo waral seen jàmbaarloo. waaw ñoom moo war a suñu jàmbaarloo mais ñun ñëwuñu fii pour xeex ñëwuñu fii pour xuloo ambassade Guinée suñu ambassade la suñu demee ambassade Guinée dafa mel ni ci biir Guinée la ñu dugg donc on a parfaitement le droit gis ak moom wax ak moom que tamit dafa tooñ kii di ambassadrice bi parce que jigéen la jigéen la dafa ñu tooñ dafa ne fii kenn du ñoom ñëpp ñoo def complot ne Sénégal fii kenn du voté daf parce que dañoo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ñii di fii seetlu dal la ñuy voté kooku di UFDG moom moo gagné élection yi Aujourd'hui, euh, nous sommes là. Aujourd'hui, nous, nous, sommes venus ici simplement juste pour montrer, et pour venir manifester au niveau de notre ambassade ici au Sénégal, pour leur montrer franchement de ce, qui, est en train de passer en Guinée. Euh, nous ne sommes pas d'accord, nous n'acceptons pas ça. Euh, euh qui a le 18 octobre passé. Euh, après compilation de notre leader, l'IFDZ, le président Elal Seloudalin Diallo, après avoir compilé les résultats, il se fait qu'il a gagné l'élection dès le premier tour avec 53, euh, quelques pourcents. Donc dès le camp adverse, notamment le président Alpha Condé, dès qu'ils ont su cela, ils ont commencé à faire leur manigance de ce qu'ils avaient fait en 2010 et en 2015, c'est-à-dire organiser un hold-up électoral, falsifier le PV sorti des urnes en faveur du candidat du RPG arc Donc c'est ça que nous sommes venus aujourd'hui manifester et montrer à l'opinion internationale et au peuple sénégalais que nous ne sommes pas d'accord et nous n'allons jamais accepté le compilage en faveur du candidat arc-en-ciel qui a perdu les élections.